mu dellu Tuubaa ba këram ñil bayti ndekete woo day tàbbi fil jinaani fi yow mi jumhatin dalay fanaani neexoon ma doon waykat ni Cheikh Moussa Ka ma jooy ko marsiyaa ka kooka baaraka Moodu Kabir ka doomi Cheikh Moussa Ka way le ma ndax ñu rey Serigne Moussa Ka yoonu Seexu Bamba amul morom kenn moom Banimba jazaakallaahu fiika Seex Musaaka xayra jazaayi gën ji fay hunaaka ma dellu sant yàlla ak Rasuul te mi am usul te sant Seexu Fallu Mbàkke def ni nga nee la di sant Seexu Fallu Mbàkke def naa jalaale yoo xam ni nga nee lan may naa yoonu murit def na ci jëf yoo xam ni moom yeggale jumaa ji ñoo yem yéene njaboot ga Seexu Bamba am fa Tuuba yiw yam selew benn selee su booba waa Sénégal yee ñoo fa moom ngir yàlla def leen te naa ñoom ba gërëm loo yàlla baax nga moom jarul di jéem a ay tey réew mi amul fi ndenn ab taalu beeg ab yar woo Seex Bamba moo kéemaane Seex Fallu mooma woolu woon fahaani ya ba ñëw am salaamatan wahaab ya Seex Fallu mooma woolu woon fahaani ya ba ñëw am salaamatan wahaab ya may bëgg toog ba suuf mu jox ma ab siis daal ne yaay bu kenn dootul siis sabaaye ruuj ba ñor le toog du seddale moom rek moom ñam toog di dënale ba mu jógee janti di sàkku mu am du doom du taalibeem du mbokk mu am Cheikh Bamba yàlla nu musal musal nu yokk sunu fante wéral nu yor jataay ba altine la waxtu yoor yoor fii sëri ramadaana taw na fa yiwóor yëgal ni am nga saa ngërëm fa daaru am nga ngërëmal xaadimal muxtaaru keroog la naa góorgóorlu sàkku barke mooy sa takaay fa daaru bul ko tekki barke taxoon Cheikh Bamba daanu wóolu naa jébbalooy fa jaajo maa ko wóolu yëgal ni am nga saa fa daaru wan nga ma ngoro jom te toog daaru xam naa ni yow la am nay firnde Cheikh Bamba ànd na ca moo di gaynde yal na nu Cheikh Bamba defal karaama ba sun liggéey yegg bi laa malaama yërmaale ak ndimbal na boole lépp may nu ko nun yoonu murid wi wépp Cheikh Bamba yal na nu fegal yaraanga ñamay nu yokku sunu teraanga bi jaayi wa jaayi lanbiyaay wal mursaliina maa lawliyaay déglul ma dénk la dolli kooko koo mën a doon dolli kooko yokku sooy murit defal murit saadex baa na na dex na def soree naa baa dapaade ak murit lu wér lu am la ñu def kaay mel ñu xam la jàppal sëriñ Tuubaa doom ya ak sët yi ak mur ya nan maase def doomam yi ñuy jëmam ja def xasaay dem yi ñuy lim nu digal moo di liggéey bam yegg nuy julee te xañ Tuubaa ji banaaniyal baaxi binaan baaxiya bi xayri hadmin lil jinaan raaxiya yàlla tabax na ko du mar bi yéeg naa ba yegg aljana la wax nii rëy naa liggéey ci ak def ci alal ngir yàlla xam ngeen ni yeggale na nit fa yàlla Seex Bàmba léppam dafa dooni xar baax yàlla nu xéewal soppi baax ya xar baax Seex Bàmba yàlla nu defal ak yeesal ci ay bu yees yi ba murid yi feesal te may nu fan mu gudd may nu barke def ni murid yu am gërëm yu tekki yàlla nu may wer may nu listixaama may ni weleel yu sax bilaa malaama maa ngi dagaan man soxna may mbakiyu Cheikh Bamba dimbali nu nuy sakiyu maa ngi dagaan man soxna may mbakiyu Cheikh Bamba dimbali nu nuy sakiyu maam faati mbakke balla may sunu doom ja laa bëgg a jaale mbokkam yaag baayam ja mboole ku ñëw fi man ba gis ma jaar ko doon sigil ñi nan ko jéegoy ñëw ak yam doon delloo Cheikh Bamba na ko fay dum doyloo maam faati mbakke dem na ñépp jooy na néegam génnee faatu doom ya Cheikh Awa Balla Mbakke man lay jaare maam Faati Mbakke doomi Seydi Jaali yaa di sunub sëriñ te noo ko bokkoon taalibeen mbokk yi ñëpp ko bokkoon di jooy nawem tàngeram bàkkaaram ba ak teere dem nga mu dem ca Cheikhu Bamba sittatu xaadimu rasuuli dem na fekki sëriñ Tuubaa xanaa ko naw na yal na ko xaadimu rasuuli teeru ànd ak rasuulillaahi may basiiru ci darajay seexul xadiimi maamam ak darajay maam Cerno may maamumam yal na ko faatimatu bintu teeru moog soxna musleek soxna may kabiiru aamiina aamiina ne leen aamiina ci darajay ka ma ne woon maymuuna ميمونة الجارية الخديم بنت الخديم تلميذة الخديم waajukam mokkal yal na am kaaraanga te gudd fan te wér te am teraanga yàlla na am xaalis bu law bu lekk di faji aajoom fu ko dëkk ma mu way wi salawaatu rabbi muhammadin wa sallim biddi na li ñu ñaan Sëriñ Tuubaa waali wa sami amina nangul ñu ngi ñaan sëñ waali wa sami amina bi bàyyi bismillahi rahmaano hayaa rahimu barru yaa dayaano